bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbaxa almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hasalim wa xayra ma baad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 jaajëfal ak sëñ Mbàkke si la mu nekkoon jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ay bis yi nu génn bi nuy jàng gàddaayu sallallahu alayhi wa gi gàddaay goo xam ne wax naa ne ñépp a ko soxla fépp a ko soxla lépp a ko soxla ànd nañu yéen ba toll ci génn na Madina suraaxataa nga koy dabi ba jot koo wax ne bu ma la bett mu ne ko góor du bett góor mbokk li jote weesu man mii ak yéen jot nañoo xam ni xorey sa soxlaa woon ndaw ñi ak ni gàddaay gi soxlaa ndaw ñi xorey su bi seen réunion jeexee dañoo tànn ay ndaw dugal leen ci ñu def safaan ndaw yoo xam ne lañ lay seen bit keroog mooy ki gën ci nit ñi lañ leen reyloo ndaw ya nangu ko ndaw loo xam ne dañ na ko ki gën ci nit ñi moom nga war a rey tey xaw ma nag nu ñu def ba convaincre leen xawma lu ñu def bañ nangu waaye lu lu lu garaaw la loolu lañ dugal ci boppi ndaw ñooñee te mooy nañ leen jox suukar ak warga ak ku ne tuuti xaalis ngeen reyal ñu ko loolu jar naa raxas ci bopp ndaw pexe mu ñu mën a def ba raxas loolu ci bopp ndaw ku ko dey ñooñu dey bëggoon nañoo jëfandikoo ndaw ñi ci lu dul seeni taas ñoom ndax ndaw nag daa am ay particularité yoo xam ne moom rekk a ko am ku dul ndaw amoo ko moo tax ki bëgg a yàq moom la soxla ki defar moom la soxla ndax bu ndaw jógee bëgg yàq kenn daxu koo yàq waaye bu jógee bëgg a defar kenn daxu koo defar yàlla na philosophie ndaw ñi nekk ci defar te bañ a nekk ci yàq la kulli xaal tomb boobu man ak yéen ñun ñépp ko seetlu waaw loolu Quraysh réunion ba noppi fas yéene faat sallallahu alayhi wa ñu jox xale ya lu ko jërut ba noppi seen mébét ya ak yéene ya ak gut ñu gàddu bàkkaar waaye mbokk yi ki bëgg a defar mu di sallallahu alayhi wa sallam moom tam la Quraysh xam ci ndaw ñi moom la xam ci ndaw ñi ba noppi xam ci luñ xamut ndax ndaw mooy kenn li nga xam ne ku bëgg a taxaw ku bëgg a jóg ci moom ngay sukkandiku moom ndaw waaye cey bala koo xam ndeysaan moom ndaw ku bëgg a sukkandiku rek ci ngay jóg ñiy fecc ci pénc bi ñiy dagar wale taasu ñi yëf yu mel noonu yépp lu ñu am ci ndaw ñi la jógee fu ñu toll ndaw ñi la fa tax toll yàlla xam na ko bu fekkee mag dana dem ca poma it dañ koy wàññi par benn benn waaye ndaw ñi la ndaw ñi fi ne boo Sega Sakho est-ce que ñu sélectionné la équipe nationale mu ne mukk boo ko laajoon Pape Mbaye défenseur u Gorée ba mu la mukk mu ne la mukk waaw boo ko laajoon euh, El Hadji Mayacine Mar waaw ca bam cay toll ndeysaan eh, di di di di fubal jaxaay <laughs> waaw alaaji Mayacine Mar ndax aji woon na makk ren woo na ma téléphone tàggu yal na yàlla nangul ko waaye damaa bëgg wax ne vétéran yi koo ci wooxoon ba ci ñoom Roger Mendy bañ cay toll ñoo ca tolloon doyen lay jaw daan nekk ci eh, reportage bi ndeysaan di la wax li li xew ci biir terrain bi ndaw ñi ndaw ñi sallallahu alayhi loolu xoree sa xam ci ndaw ñi moom la xam ci ndaw ñi ba xam lu ko ëpp mu responsabilisé Seydina Ali ndaw la ne ko wóotuma ci lal bi joxeel ma ndénkaan yi daal jël Asma bint Abubakar Saddiq ndaw la ne ko couvrir couvrir ñu euh, événement bi daal di jël gidd ba ko doon wan yoon wa ndaw la daal jël ka ka ka doon sàmm fa leen wër di di di di rejuwaale ndaw la waaw Musab ibnu Umayr mam yebaloon Madina ndaw la mu jox cër ndaw ñi te teel leen a xamal seeni responsabilité loolu tam ci ndaw lu am solo la gàddaay gi da koy jàngale ku bëgg a jóg sukkandiku ci ndaw ñi la ngay def su baaxee ci ngay sukkandiku ci ñoom su baaxut ci ngay sukkandiku ci ñoom ndax ñoom ñooy yet wi nga xam ne kuy rëbbi boo ko yóbboo am dara naa la ko wax fi ne pénc mi régime bu toog li feeg yaa ngi ànd ak ndaw ñi yaa ngi toog ku ku ndaw ñi woon ginnaaw nga nga wane ginnaaw waaw lu am solo la moo tax ndaw jar naa xam jëfandikoo ko ci côté bu positif bi mu jëriñu péncam bi dee benn kose ba mën naa ñàkk a baax waaye dañu jàng ci gàddaay gi ndekete jigéen ci la bokk waaw ndekete jigéen ci la bokk rôle boobu asma doon def rôlu jigéen la waaw rôlu jigéen la te journaliste yu jigéen yi xam nañ ci dara waaw xam nañ ci dara ndeysaan waaw waaw sunu sunu doom jële ca ca ca RF TFM wala RFM eh, mu di astu mbenn cubu ndeysaan yal yàlla sàmm leen li may wax nii xam nañ ko ñoom waaw mbokk yi kon ndekete jigéen ci la ñu jox ko ci cër bu tol noonu ci lu tol ni gàddaay mhm. bokk na ci dars yi ñuy ame ci gàddaay gi ba la continuer mooy kere bi alayhi salaatu salaam naree jóge Madina liñ ko dénkoon ci alal fa la ko bàyyi teg ko ci loxo yu wóor koo ko delloo ko ndax alal borom bi da ko ci dee xiyaaman li naasi alal borom bi da ko tuddee xiyaaman linnaasi moo tax ku ca domp lu ca bokkul rek sunu borom ne daggal leen ma loxo bi dagg leen loxo bi hmm? waaw waaw ndax jël dara ñu dagg sa loxo loolu doy na waar moo tax mbirum alal subhaanahu wa taala ne woon alayhi salaatu salaam su ma la ko bàyyee nga àtte ko mbaa nga séddale ko sentiment yi mën naa dugg te alal alal soxlawul santiment ah mu ne ko déedéet bàyyil ma seddale asaka bàyyil ma seddale miraas bàyyil ma àtte càcc allahu akbar <laughs> moo tax bi alayhi salaatu salaam naree jóge almadina naree jóge màkk ngeen baal ma ab dërëm topp ko ab dërëm topp ko ki ko dénk vingt mille francs ba ci ki ko dénk vingt millions ñoo bokk yam ci guddi gi mu def ci benn euh, séance de travail mook Seydina Ali bu am solo passation de service ne ko lii mooy liñ ma dénk lépp waaw ndax booba waa maakaa ko tudd al aminu mu ne ko lii mooy liñ ma dénk lépp mu ne waaw mu ne ko liste naa ko liste naa ko li tàmbalee ci vingt mille francs ba ci vingt million ñëpp a ngi nii te booba xëy na jullit yi dénk nañ ko waaye yéefar yi ko dénk ëpp ndax kóolute gi ñu amoon ci moom moo tax alal mbokk yi doy na waar doy na waar képp koo xam ne yaa ngi dégg dundug alayhi salaatu wasalaam dafa bokk ci li nga ciy jariñoo mooy nga moytu lekk alal jàmbur ndax lekk loo moomut day gàllankoor dunduk nit di gàllankoor ak wér-gi-yaramam ndax sunu borom lum tere baaxut am na feebar yuy dal nit léeg-léeg lekk lu moomut a koy waral waaw docteur yi seet gisuñu dara waaw docteur yi gisuñu dara ñu def rajo gisuñu dara ñu def yeneen ya gis ñu dara waaw am na machine bu ñu lay dugal léegi dugal la ci biir machine ba ñu dugal la ci gisuñu dara jox la say kayit te yow yaa ngi yëg dara waaw malade baa ngi yëg lu metti docteur yi gisuñu dara lu xew yooyu la yàllay bañal nit ndax na innama yaakuluna fi butunihim naara sawar la ñuy lekk xam ngeen ne ku lekk sawara du rees loolu alxuraan ko jàngale innama yaakuluna fi butunihim naara lekku ñu dara lu dul sawara mbokk yi kuy lekk sawara sàqami ga rek ci nga jëkk sonni waxuma naa di ko wanaasu waaw tombale bu am solo ci gàddaay gi alayhi salaatu salaam ab dërëm topp ko dem ñu ñëw ginnaawam muy xores ñi ko doon wër su fekkoon mën nañ koo jam ci point boobu ci lañ koy jam waaw ci lañ koy jam waaye mënuñu ko ca jam gëstu nañ wër nañu kenn ku nekk lañ ko dénkoon delloo na la ko salla aleyka laahu ya alimal huda alxuraan addu eh, lool ci lu bari ci côté bu mel noonu waaw moo tax sunu borom di ne ku leen dënk delloo leen ku dénkaan ja ci na mel na meloon ala kulli xaal moom tam tomb lu ba am solo bu ñëw ci gàddaay gi bokk ci li ci ñëw euh, nit di def lu mel ni tukki dem yow dong da ko doon tere waaw mu ànd ak Abubakar Siddiq ñoom ñaar ñu ànd wuti Yasrib waaw ñoom ñaar ñu ànd wuti Yasrib nañ ma baal sunu mbokk yi jóge ci réew mi di dem bitim réew xam naa léeg-léeg nit làqatu dem waaye ku làqatu dem ba àgg dangay dem ca senegaal muy consulat ba walla ambassade ba nga ñëw ne leen ñëw naa ci réew mi Mor Xujja laa tudd mbar laa dëkk waaw le vingt six mars laa juddu mille neuf cent cinquante quatre ba ñoom ñu xam ne yaa ngi ci dëkk bi loolu dafa am solo lool alayhi salaatu salaam jàngale ko ci gàddaay gi yëglu yëglu ndax léeg-léeg dara xew ah wax yàlla am réew mi war a jóg def ca su xamul li jógoon day jafe waaw loolu lañ ko ciy jànge donte nag réew mi génn ko dem ci yeneen réew yi nit ñuy traité métti na lool bët bu set nga am trois cent millions wala boog lu ko ëpp wala boog lu bari daal laa bëgg wax rek te di ko amee ci doomi réew mi ndax quatre-vingt-quinze mille fois cent personnes léegi tey nga amoo xaalis ambassade boo dem daanaka ci réew mi ñu néew la ciy delloo sa xaalis waaw ñu néew waaw ñoo la ciy delloo sa xaalis man ñetti yoon yi ma dem yëpp di tànt pour dem pour dem Amérique <laughs> lañ ma jëlaloon delloowuñ ma ko ba fii ma toog waaw delloowuñ ma ci dara wax dëgg yàlla ala li xaal gàddaay gi kon mbokk yi nii ma koy waxee nii damay junj rek waaye yéen itam nu la leen li nu la leen def waaw nu la leen def ndax eh, professeur Songe ñuy jàngale philosophie ñoom tam dañuy jàngale lu mel noonu waaw rëddal la rëdd yi eh, xool ba xam kon gàddaay gaa ngi noonu ak i bindam alayhi salaam daal di fay déparé. bokk na ci liñ ciy jànge kuy tukki du dog yoon wa benn yoon maanaam jóge ndakaar jëm jëm jëm Saint-Louis taxawu fi benn yoon normalut jóge Dakar ila Saint-Louis taxawoo ci benn yoon normalut jóge Saint-Louis jëm si Dakar taxawu ci yoon yu benn yoon normalut aw yoon kenn du ko lem jóge jóge ndakaar jëm Touba xotti ko benn yoon normalut déedéet de mën na war nga def bu fekkee yoon wi julli def la cee fekk nga dem fenn droite julli def sa tasbihaat def sa ya nga daan def boo jullee ba noppi yéegal sa oto lu gàtt-gàtt moteur ba am na lu mu fa nopp lu doonte doyut yi ñuy tàmbalee def ci tali bi tam nga xam ne benn station mooy ñëw euh, wut fab jàddukaay ba wut fab jullikaay yooyu itam romb romb ñaari yëpp ba ñett ba ñeent jàdduwut yonent bi danaa wax ne kuy tukki nanga nga noppalu ca noppal li nga war ginnaaw oto xew nag léegi kuy noppalu ca yoon wa dangay noppal li nga war te mooy moteur bi noppalu Eh, yow tam nga noppalu bu fekkee moteur bi soxla na ndox nga jox ko bu soxla woon ndox nga bàyyi ko mu féex yow nga noppalu waaw ñoom Baye Abdou Sall mbaagaan sànn seeni jamono boo daan noppal da nga ubbi capote bi <laughs> loolu ñu tuddee capote boobu ay 46 moo xew ndeysaan ñoom bàyyi Cheikh Noxo cey waaw waaw ñoom Baye Alla Si ñoom Baye Ibra Yali ndeysaan kenn mësu koo kon da ngay noppalu noppal li nga war li nga war nun dañ fiy jóge di dem ndar maak samay gaay di di jàdd ci restaurant bañ tudd ñu ko <laughs> dama ndaw ko ndaay baal as ndaw ñoom waaw ñu fi <laughs> jóge fi dem ndar di wàcc ci ci restaurant bañ tudd ko bañ tudd ko <laughs> ndeysaan cey wajule waaw bu ñuy dem ndar jàdd fa buñ dëppee jàdd fa ndax lan noppalu noppal leen war noppalu noppal leen war ndax motoor daa soxla noppalu ni nit ñi soxlaa noppalu waaw bu noppaloo ba nopp nga daal di ñëw nag continuer la nga desee loolu alayhi salaatu salaam jàngal na ko ci gàddaay gi moo ko taxoon wàcc ca xaymatu ummi maabat waaw foofu doon laajee gàtt ba pour lu mu añee mbokk yi yooyu ay gendeeku la ki mu li ngeen ci xam mën naa ëpp lima ci xam eh, ñu del si ci xissa bi mooy saaru suraaxata sirran ca raa yi moom sa maam maam siñ tuwaar ji la saaru saaru suraaxata suraaxa jenn waay la woon ju am fit waaw am fit lool waaw mën a jam lool am façon gaaw lool mu boole yépp diggante bi alayhi salaatu salaam jógee màkka nekk xaymatu ummi maabad ba jinne ya waxee fañ nekk waa xuraysi na nañ ko dabi suraaxa lañ jël waaw suraaxa lañ jël ndax góor it léeg-léeg mu toll fi foo toll foo xam ne boo ko diggee yëf rek mu def lu mënul laaj ko kadaba thamud bi taxwaaha idin baada ashqaaha ñaar li nit di ragal ci pénc ne du ko def léeg-léeg jenn waaye mooy dëgër fi ne moom dana ko def waaw loolu ëpp naa def de lu fi ñëpp bàyyi rek bàyyi ko fi lu fi ñëpp bàyyi bàyyi ko fi euh, sunu mbokk ma Fallou Cissé Fallou Cissé musiba mbàbb ma ba ko daan nettali doo bëgg mu bàyyi waaye daf ci daan boole lu fi mag ñi bàyyi bàyyi ko fi ndax mag ñi raw leen yombut yombut de raw leen yombut waaw gën leen yombut waaw raw leen yombut gën leen yombut moo tax lii suraaxata def bu amoon ni bokk ak ñu mën a waxtaanal maam waxtaan ak ñoom du ko def bu waxtaana kom xelam du ko def waaye daal def na ko mbokk yi rëpptal fas wi waaw dawal ko jàkkaarloog alayhi salaatu salaam mu xool ko mu xool ko mu xam ne kii mooy ibnu abdullah kee mooy abubakar saddiq ñoom tam ñu xam ne kii suraaxata la ibnu malik suraaxa daal di génn jas ca mbar ma jas ju ñaw te rëy te mën a dagg soxla boppam yonent bi alayhi salaatu salaam ndax mu yót ko waa Xuraysh ñu financé ko lañ ko waxoon may ko ndaw sañ ko diggoon may ko kër gañ ko diggoon may ko teere yi ñu ko diggoon mu ne bocc jas ji ne yonent bi bettuma la ku tedd ka ne ko góor du bett góor góor du bett góor hmm, mu ne ko mukk <laughs> góor du bett góor de dooral góor du bett góor góor fu nekk daa di fagaru dafa am benn bis may yër ci eh, Facebook ñu wane ci kéwal gooy naan waaye boo xoolee li muy naane mi ngi am lu muy tiit lu jóge ci ndox mi song ko loolu la kiwél la kiwél gi jàngale mu ñëw ci catul ndox mi di naan ci cat li am jësig ju nekk ci biir ndox mi nuur ci suuf feey wut si ko waaye ba mu génn tëll ca ndox ma comme moom waajaloon na daw mu fente ko waaw mu fente ko waaye su fekkoon daf nekk ci digg ndox ma bu jëse ja déparé dana ko ŋànk te su ko màttee gaañ ko góor du bettu góor góor du bettu góor aca alayhi salaam daan ne suuf téyel ma suraaxat wa maa yaalamu junuud rabbika illaa hu suuf téel ma suraax suuf ne ko caq ñu commencé wax ñoom ñaar yow la suraaxata mu ne ko waaw mu ne ko xam nga lu la téye ah déedéet mu ne ko suuf la sama borom jox ndigal ma jox ko ndigal mu téye la ndax yàlla li fi nekk lépp ay ay ay ay ay ay soldaaram lañu noo ko xamul rek ko naka mu mu ne ko soo ma bàyyi ma dugg ci li ngay woote mu bàyyi ko mu jàpp ne loolu maanaam li ko téye woon lu naturel la suuf si la woon rek waaye du du du du du làmmiñam du du ay ndigalam mu tëbaat bëgg koo songaat mbokk yi ba subaak jàmm ba xam <laughs> ba subaak jàmm ba xam bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 wala bokk 88 ñaari yoon ngeen baal ma ñu ànd suñu jotaay bi nga xam ne lënd lay am ak mardi jotaay bi 8 heures lay tàmbali 10 heures lay jeex ak sëriñ fi yëkkatee jotaay bi ndax su mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ni taxaw yor seeni këyit bëgg leen a firim fàncal xibaar yi ci tubaab firim fàncal ko ci wolof ñaaneen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii nga xam ne mooy sànni wax ji jaww ji boo waa Kër Mbay Fall mën koo dégg ak suñu sponsor bii di ànd ak ñun c yàlla barkeel ko la ci bitim réew ñëw li ci biir réew mi jar yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tata wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa wa barakaatu